avion orange tegu nu fenn jox nu ci respecté wu nu amuñu bës nag teg ci ñun moom gis na dara. ñu daal di mer ba futu yi la jigéen yi ñu fekk foofee ca pavillon orange bu foire internationale bu Dakar daal di rek ñëwaat ci seen i jafe-jafe. fi ñu toll nii moom wax dëgg yàlla situation bi doy na waar ñun gisuñu kenn dañu toog nii rek da ngay xëy suba ba ngoon jot doo sooxee. les dix premiers sax jaayuñu. en plus stand yi cher na. stand yi presque mi ngi nekk huit cent mille nga pare tourné fayaat décoré ba maam daal mën naa ni un million la presque. ñoom nag ñu daal xam ne ni que ñàkkub client yi li ko waxal mooy publicité bi moo doyul ngir rek gën bi lay événement. concert yi ñu daan def par artiste bu ñëw tey beneen yoon benn artiste ñëw loolu dañ ko annulé ren amul. parce que yi ñu waroon publicité avant foire bi. ci yooyu nit ñi dégg xam ne foire day ubbi defuñu ko moo tax kenn xamu ko da ngay wax foire bi ñu la foire kañ la am xam nga kon loolu baaxul ci jaaykat. yii de jigéen yu daal di xam ne ne que biñ fa toogee ba tey benn autorité tegu fa tànkam ngir nemmeeku leen. ñu fi gis na fi ministre gis na fi kenn ndax da pavillon orange bi ñëw fi da pavillon orange danoo def mbalit ñun pavillon orange mbalit lañu def mbalit. mbalit lañu def ñëpp a ngi ni ñun jaay nu dara ñun man ñu ñoo xaw ñun ñooy géttu béy xam nga géttu béy ah, pavillon orange mooy géttu béy ñenn si ñoom sax dañoo daal di wàññi seen njëg yi dem sax ba si perte loolu lépp nag ngir am lu ñu faye seen stand yi bu FIDAK bi jeexee ñoom nag jamono ji lañ bëgg rekk moo ñu yokkal leen ay fan ci foire bi ngir ñu mën a jeexal seenug njaay